di leen ndokkeel di ñaan yàlla boole ñu defal tawfiq ñu bëgg ñëw tuuti rek indi suñu gis-gis ci laaj bi nga xam ne eh, Seydi Aboubacar Diallo laajte na ko mu jëm ci wàllu ndono yi nga xam ne nitu yàlla yi ñu ngi koy donnante ndax kon doona loolu lu yonent bi sallallahu alayhi jàngale la ak i tamit ñi koy def seen ginnaaw ku ci mel ni Maulana Cheikh Ahmad Tijaani radiallahu anhu ak kilifa yu baax yépp ndax nañu nañ koy doxalee ci ku mag toog ki xale topp ci ginnaawam ndax noonu la ala kulli xaal dinañ ci wax luñ xam euh, fi ñu njëkkee nag mooy dañuy santaat yàlla moom mi nga xam ne xew-xew <clears throat> wu xew ci àdduna bi rek àdduna ci lii ñuy waxtaanee ba ci àddoo du tey comme ni ma ko waxee ci sama ojo yu ma ci defoon ci suuf dafa wax ci téere bi moom borom bi tabaraka wa taala ci suratul baqara ne wa iz qaala rabbuka lil malaikati inni jaa'ilun fil ardi xalifa fàttalikul ba sa boroom waxeeg malaaka yi ne leen man kat dinaa wàcce xalifa ci kaw suuf maanaam dinaa teg ci kaw suuf ku may wuutu loolu tegtal la muy aaya bu wér ci téere borom bi tabaraka wa taala kenn amul sañ-sañ di ko weddi ndax bépp yax bu rot ci alquranul karim képp kuy jullit te weddi ko yow yaa poussé sa bopp ci kéefar dañ lay tuubloo boo ko mënut jaati jaasi sariya dal ci sa kaw aaya boobu nag mooy doon suñu mabda ak suñ sukkandikuwaay ci lii nga xam ne moom mooy xilaafa buur dafa ne yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam fàttalikul ba sa boroom di wax ak malaaka yi ne leen man kat dinaa wàcce ci kaw suuf xalifa xalifa boobu ñun ñëpp xam nañ ni amul sikk ni yonentu yàlla aadama alayhi moom la woon ana nag lu wundu mu wàccee xalifa ci kaw suuf buñ ko xamee rek li Cheikh Aboubacar di laaj dina leer kii nga xam ne mooy yonentu yàlla aadama ku ne xam na ni yàlla daf ko bind ci coobareem mooy kun fayakun ginaaw gi mu jël leer gi ñu tuddee an nuurul muhammad yi toxal ko ci moom kon mën ngaa wax ni yoon yonentu yàlla aadama alayhi salaam yàlla daf ko defoon benn jumtukaayam <clears throat> boo xam ne ci lay tasaare li nga xam ne moom mooy mission wam te mission bi dëgg mooy leer gi nga xam ni mooy leer ak lislaam muy leer ak nubuwatu di leer ak risalatu te leer googu moom la ñuy tuddee an nuurul muhammad yi nag wàcc ci kaw suuf doon wasila lintiqaali nuuril muhammad yi ngir toxal leer gi nga xam ni mooy leer ak muhammad yi min xalifatin ila xalifa jugee ci ki jëm ci kële jugee ci kii jëm ci kële loolu li muy tegtale mooy kon ndekete xilaafatu boobu suñ borom subhanahu wa taala doon junju xilaafa boo xam ne dañ koy doon nante kon ndono loolu mooy li njëkk lii firndeel doon nante gi mooy borom bi tabaraka wa taala dafa wax ci suratu saad ne yaa daawudu inna jaalnaaka xalifatan fi l yow daawud ñun ñoo def xalifa ci kaw suuf kon da gis ni daawud xilaafatam googu ñu juddoo ci xilaafa ak aadama yi nga xam ne moo jiitu xilaafaam gi kon ndono la te ñëpp xam nañ ni balaa ñuy yegg ci daawud yi fi jaar yépp ràngoo nañ maqaama boobu nga xam ne mooy wala martaba boobu nga xam ne mooy martabatul xilaafa bi nga xam ne moom la suñu borom subhaanahu wa taala ràngaloon sayiduna adam alayhi salaatu wassalaam buñ nangoo loolu ba pare yàlla xilaafatam googu li jëm ci wàllu yonantu yi maanaam ñi ñuy tuddee anbiya u di leen tudde al ar rusul ñoom seen xilaafa mi ngi ci sayidil anbiya wal mursalin muy yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ci loolu nag la yàlla matalee li nga xam ni moom la ñuy tuddee alxilaafa zahira wal xilaafa batina dinañ ci ñëw muy xilaafa gi feeñ ak xilaafa gi nëbb ci yonantu bi sallallahu wa sallam la ko yàlla matale ndax yonantu boobu moom la yàlla def muy leer gu njëkk gi an nuurul awwal wa sayyidina muhammadin sallallahu waaye mooy aaxirul rusul ngir lan ngir leer gi yàlla doon yónni di ko yóbbante mu ñëw dellu ci cosaanam moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxaw di insaanul kaamil di nit ku mat sëkk lépp lu ñuy soxla ci wàllu yàlla ñu fekk ko ci moom lépp lu ñuy soxla ci wàllu àdduna ñu fekk ko ci moom kon dafa taxawee sifaat taxawee asmaa yi waaye dafa taxawee mazhar bi ñuy tuddee jalaal ak mazhar bi ñuy tuddee jamaal loolu nag day firndeel ni xilaafa moom ci ëzal la tàmbalee te du dakk mukk ba keroog péncam yàlla alquran dafa ne nuurun min allahi euh, alquran dafa ne qad jaakum min allahi nuurun wa kitaabun yàlla dikkee na leen nuur boo xam ne ci moom la jóge leer googu mufassiruuna yi firee nañ ko ni mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kitaabu mubiin mooy alquran leer googu nag mooy leer gi nga xam ne suñ boroom subhaanahu wa taala def na ko muy nutfa muy toqantalu ma yi boo xam ne mi ngi jaar ci ay ndigg yu yoo xam ne seeni boroom ñu laab leen di di dund ci jëmm yoo xam ne boroom jëmm yooyu ay xol yu laab lañ yor seen xol di dund ci yàlla seen jëmm di dund ci yàlla leer googu nag mënta fay day wéy rekk ba keroog pencam yàlla mu jaar fa muy jaar jaar fa muy jaar ba keroog yàlla di ko wàccewaat ci yonantu bi di muhammad sallallahu alayhi wa moo tax ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkkaale woon ak ñi yen woon mbóot moomu ku ci mel ni Abdul Muttalib eh, ku ci mel ni Abdullah eh, ñaar ñooñu nga xam ne gàddu nañ leer gii nga xam ne mooy leer ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis nga manzila biñ amoon ci seen biir dëkkandoo yi li ko waraloon mooy li ñu gàddu bu ko defee nag ci loolu lañ jàng Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu mu ñu jàngal nañu nuuruhu awalul wujudi wujudan fa huwa aslul usuli wal anjaali lam yazal nuuruhu bi ayni ilahi fi intiqaalin fi lkawni bada intiqaali ba fa muy waxee qaala ama alxaraamu falmawtu duunun fi kalaami yaquluhu zu kamal comme ni ko imaam albusayri waxee ci hamsiya loolu li muy firndeel mooy leer ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo nekkoon ci yonent yàlla aadam di toxalu di wàcc ci nuux di toxalu di wàcc ba yegg si Aysa di toxaru di wàcc ba yegg siwaat ci jëmm jooju nga xam ne moo jëmmal xaqiqatul muhammadiya mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag moom ginnaaw fàddu jëmm gi leer googu dafay continuer nam fi nekkee woon te jëmm ji nekk fi moo tax e, lam yazal nuuruhu leer googu masta dañ e, bi ayni ilaahi nekk ci sécurité ak sama borom intiqaalin fil kawni fil kawni baada intiqaal bi toxu ci nekkitee fi toxalu ginnaaw ak toxalu maanaam mu jaar ci kii jaar ci kële jaar ci kële jaar ci kële leer gi nag fu nekk ñëpp koy sopp ku ne jàng na ci hamziya di sidi muhammadul busayri radiallahu anhu wax ni sidna abdullah moom gaa ñi dañ ko doon jigéen ñi dañ ko doon fitnaal waaye da leen daan wax ni lu xaraam moom du ma ko def loolu di tegtale ni mbir mi du jaar ci ku dëng kon loolu benn màndarga la ci màndargay xilaafatu ku jub rek moo ko mën a doon yàlla nag dogal <clears throat> ci xikmatoom ak ci xam-xamam ne kat yonentu yi fii lañ yem laa nabiya baadi la yonentu bi sallallahu alayhi wax waaye nag am nañu war a mottali mission wu yonentu yi muy boroom xam-xam yi boroom xam-xam yooyu nag nga xam ne yàlla defal na xeet wi nga xam ne mooy xeet wi gën xeet wi diggu dóomu wa kazalika jaalnaakum ummatan wasatan ci beneen laaya kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ci beneen aaya googu yëpp yàlla daf ko ci ñii nga xam ne ñoom ñooy boroom xam-xam yi war a donn lii nga xam ne moom mooy xilaafal muhammadiya ci maanaa boobu ngay déggee awliyaau ummatil muhammadiya ka ambiyaay bani israil maanaa boobu ngay déggee ni wëli yàlla yi nga xam ne ñoom la yàlla sédd umma bi nga xam ne mooy ummatul muhammadiya ñoom dañuy taxaw taxawaayu yonantu yàlla yónni woon ci banu Israël moo tax xilaafa kuutal yàlla kuutal doomu aadama ci kaw suuf defut ko muy dara lu dul mu wéy ci kaw suuf di dundal kaw suuf ndax wastaamarakum fiha ba dundal leen ci kaw suuf waaye doomu aadama moo wara dundal kaw suuf boo demee ci suratu namli buur a ngi wax ni amman yujibul mudtarra ida daahu wa yaksifu suua wa yajalakum xulafa al ard loolu nag muy man muy kenen muy keneen képp koo xam ne wàcc na ci kaw suuf taxaw fi taxawaay boo xam ne mi ngi jëriñi di fekk lor kooku day dugg ci biir wa yajalakum xulafa al ard loolu lu am solo la kon buñ déggee yii yëpp dañuy xam ni xilaafa moom du luñ créé comme ñu ko ñenn ñi foogee foog ni luñ créé la dañoo toog ba jamono rek ay nit toog di wax naan nangam ak nangam demeewul noonu demewul noonu boo ñëwee nag ci xilaafa gi nga xam ne moom lañuy ñuy tuddee maanaam ki ñuy tuddee xalifa xam nga xilaafa dafay mel institution mais xalifa bi mooy kiy dundal institution boobu mooy kan xalifa mën nañu wax ni mooy ki nga xam ne an naibu anillahi tabaraka wa taala wala an naibu an rasulillahi sallallahu alayhi mooy ki nga xam ne moo donnu euh, moo wuutu boog maa ngi jégalu ci baatu donnu ndax yàlla moom deesut ko donn mooy ki nga xam ne moo wuutu borom bi tabaraka wa taala ca cooba rek borom bi ak ci ndigalal borom bi ak ci kattanal borom bi ak ci soppandiku borom bi tabaraka wa taala ci moom waa jooju moo ci mbindeef wala ñu ne moo wuutu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci xeet wi bu defee nag maana biñ ci jublu nag ñun ñi nga xam ne ñoo topp Mawlana Cheikh Ahmad Tijaani radiyallahu anhu dañuy wax ni alxalifa wa naibu an Cheikh Tijaani radiyallahu anhu xalifa mooy ki nga xam ne moo remplacé Mawlana Cheikh Tijaani radiyallahu anhu te wala yujadu fi kulli asrin illa xalifatan wahid jamono june benn lay am jamono june benn xalifa mooy am bu fekkee suñu pas-pas ci Mawlana Cheikh Tidiane radiallahu anhu wér na ñun Tidiane li dëggal mooy jamono june benn xalifa mooy am ci kaw suuf xalifa boobu nag moom la ñuy tuddee xali xilaaf borom lan mooy lool xilaafal xaqiya buñ ko waxee benn daaira la boo xam ne daairal xaqiya la moom fépp fu yàlla jëmmoowee rek maanaam fépp fu yàlla di yàlla rek moom dafay nekk di xalifa yàlla xaytuma kaanati zaatu zaatan kaanati alxalifatu xalifatu xalifa fépp fu yàlla di yàlla rek foofu xalifa bi dafay nekk xalifa bi ndax dara du dox ci digganteem ak yàlla amul benn farqu lu dul lu ñu tuddee tanazul te boroom maqaama boobu kenn du ko jiitu ci loolu te itamit loolu nga xam ne mooy xilaafal xaq ya kenn du ko ci doon loolu xaqu la kooku ci ñi xam li may wax daairaam mooy axiriyatul xaqaa'iq ci amal ak ci tëbb kon moo tax xilaafaam gi dafay nekk xilaafa boo xam ne dañ koy boyal ci xilaaf ak yàlla gi waaye nag day am ker ker googu nag mooy xalifa bii ñuy waxtaane ker gi mooy xalifa gi ñuy waxtaan mooy li ñuy wax zill xalifa boobu bi ñuy waxtaane nag moom lañuy wax kaamilul asri ci jamono bu ne mooy ki matee jamonoom ci jamono bu ne moom kenn lay doon ci jamono bu ne loolu mooy suñu pas-pas ñun ñi topp Mawlana Cheikh Ahmad Tijaani radiyallahu anhu léegi nag ci biir loolu da gis ni mboolem ku fi nekk di kilifa di waxee ci xam-xam dañuy jàpp ni xalifa boobu nga xam ne moo wuutu borom bi tabaraka wa taala ci léppam ci ay jaamam ndax mooy doon maxallu nazarillahi fi xalqihi kooku kenn lay doon koo xam ni dafay def ay feeñeekuwaayam ci benn anam bu ñuy tuddee sifa wala ci benn anam bu ñuy tuddee ismu ko defee nag ñu xam ni kon xilaafa buñ koy wax xilaafa gi ñuy wax nag mooy xilaafa gi ñu xam te dëgg boroomam mooy ki boole ñaari martaba yi muy martaba bi dox ci diggante sifa ak ism te dafay am ak askan boo xam ne dañ ko koy askanalee mu aju ci ñaari daaira yooyu muy ismu ak sifa kon loolu dafay leer comme ni nga xamee xol moom mooy li boole jëmm ak mooy li boole jëmm ak ruxu nag lu mat a dégg la allahu huwal waliyu loolu la borom bi tabaraka wa taala wax yàlla mooy waliyu bi maanaam mooy ki méngoog yéen yàlla mooy ki méngoog yéen boo delloo ci tafsiru cheikh ibrahima ñas radiallahu anhu inni jaa'ilun fil ardi xalifa daf la ne xalifa boobu mooy aadama mu ne yàlla dafa def xalifaam ci wujud gi muy aadam ci aadama lay exécuter ay dogalam ak i jëfam aadama daal mi ngi mel ni kase boo xam ne kase buur la moom la suñ borom subhanahu wa di kase ay biram ci biir loolu nag da ci ciy déggee ni xilaafa am na ñaar xilaafa bi ñuy tuddee xilaafa zahira mooy bi feeñ ak xilaafal batina ak xilaafa bu nëbbu incha allah loolu yi tamit dinañ ci leeral bu baax euh, bu fekkee yow mi may dégg yaa ngi may dégg bu baax dama ne xalifa bi mooy an naibu an cheikh tijaani radiallahu anhu ci ñun liñ gëm ci tijaani yëpp mooy ki remplacé Mawlana cheikh tijaani wala yujadu fii kulli asrin illa xalifatan waxid jamono bu ne benn xalifa mooy boobu nag yatalaqa kulla ma yafidu min xadrati alkatmi min asrarin wa nuurin wa anwaarin mooy ki nga xam ne mooy gàttandu lépp loo xam ne mi ngi bëbbee ci péyeb Cheikhu Tijaani radiallahu anhu ci ay mbóot ak ci ay leer bu ko defee nag wa yuqassimuha bayna almuridin mooy servir taalibe yi ala qadri ma tataxamalu arwaxuhum kenn ku ci nekk li nga xam ne moom la sa sa sa ruuxu attan rek mu servir la loolu wala ala qadri istiadadatihim wala ci kem seen capacité liñ attan maanaam seen préparation xalifa boobu nag la ñuy tuddee alxalifa al baatin kooku ki nga xam ne moo koy euh, nattal garaat boobu maanaam ki nga xam ne moo koy ràngal garaat boobu du kenn ku dul Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu du ab taalibe mooy toog rek ne sama sëriñ mooy xalifa baatin loolu wérut du ab taalibe mooy toog rek ne sama mooy nangam wérut li ñuy tuddee alxalifa al baatin alladi yunsibuhu sayiduna Ahmad Tidiane radiyallahu anhu bi iznin min rasulillahi sallallahu alayhi wa ki nga xam ne moom moo koy fal jox ko garaat googu mooy Seydina Ahmad Tijaani radiyallahu anhu waaye daf ci am ndigal ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam te yonantu bi sallallahu alayhi wa ndigal lum jox Cheikh Tidiane rek ci yàlla la ko jëlee loolu buñ ko bëggee gën leeral ñu mën koo dégg ci baat yi gën siiw ci jamono dañuy wax ni moom mooy al al qutbaaniyatul uzma mooy alqutbaniyatul uzma ki ci njëkk a toog ginnaaw Mawlana Cheikh Tidiane radiallahu anhu wala boog ci dund ak Cheikh Tidiane radiallahu anhu ci liñ xam te Mawlana Cheikh Tidiane radiallahu anhu jàngale ko mooy Seydi Cheikh Ali Harabi li koy dafa wax ni laa ila ahadin minni shay'un illa ala sayid yadi sayidi aliin xarawi alxaaji aliin xarawi aw kama qaal mu ne kenn ci samay taalibe du jot dara lu jugee ci man lu dut ci loxol sayidi aliin xarazim ci lay jaar kon loolu tegtal la muy benn fi ahmad sukkeerij radiallahu anhu ba muy jàngale wax jooju dafa ne gis naa ci ñenn ñi nga xam ne ñu ngi bokk ci ahlul basair boroom gis-gis yu set yi ñi bokk ci kaafatul asxaab al muctabirina min azwaaqi asraari tariq ñi ngi ci kuréel ak taalibe yooyu nga xam ne ñu ngi leen jàppee ñi mos nañ ci mbootam tariqa ñoom dañoo gëm ni kii nga xam ne mooy sayidi seex alim xarazim moom mooy xalifaab Cheikhu Tijaan radiyallahu anhu ci dundam ak bam génnee àdduna wax ji nag li muy wundu mooy yusiru ila anna alwirasa laysa li saxsiyati sayidi ani xarazim bal tarjiu ila xarazimiyatihi li muy wund mooy wax ji duwut xilaafaat sidi alil xarazim ci jëmmi sidi alil xarazim la wàcc ndax baatu xilaafa li firi mooy wuutu koo xam ne moo la wuutu te ñëpp xam nañ ci taarix ne Seydi Ali al-Harazim radiallahu anhu moo njëkk génn àdduna Seydi Cheikh Ahmad Tijaani radiallahu anhu kon foofu benn maqaama la boo xam ne moom la doon wax rek ni Seydi Ali al-Harazim moo ko ràngoo te muy Harazim yëpp comme ni nga xamee ni noonu la ñuy jiiñee Sidi Omar radiallahu anhu foofu ku ne xam na ni Sidi Omar al Fouti radiyallahu duut mahdiyu waaye toog na ci maqaam ak mahdiyu toog ci maqaam ak mahdiyu nag tekkiwut ni yow yaay max mahdiyu gis nga yàlla benn yonantu la am ñi ci des ñëpp dañoo toog ci maqaam ak nubuwa muy yonantu yu fi jaar yëpp ngi jéggalu nag ci loolu yonantu yu fi jaar yëpp dañoo toog ci maqaam ak nubuwa waaye yonantu bi dëgg dëgg dëgg mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñoom ñëpp ay nabiyu lañ ay anbiya u lañ waaye nag yonent bi yàlla bi nga xam ne moo raw ñëpp ci dëgg-dëgg mooy yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nit dina ràngoo maqaama boo xam ne moom duut jëm ni maqaama bi waaye dafa ràngoo maqaama bi loolu moo dal Cheikh Sidi Ali Harazim loolu moo daloon itamit Cheikh Omar Fouti radiyallahu anhu Euh, bokk na ci dëggal loolu Mawlana Cheikh Ahmad Tijaani radiyallahu anhu wax na ni yonent moo ne ko e yow Ahmad maa ngi lay dénk sa taalibe bu mag bii sa soppe bu siiw bii Ali Harazim ndax moom mi ngi wàcc ci yow wàccuwaay bi Haaruna wàccoon ci Muusa Cheikh Sukayrij moo ko nettali lii may wax nii boo demee ci tarjamatu Sidi Alin Harazim ca kashful hijab di nga ko mu teg ci ne fa allahu akbar wa ajal wa adam wala wasiyata usika ala xadimika akbar min hadihi alwasiya wasalaam mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne ko yàlla rek a màgg mooy ponkal mi amul benn dénkaane bu ma lay dénk bu ëpp kii nga xam ne moom mooy sa taalibe bi di Sidi Alin kon loolu tegtale ni moom toogoon na ci maqaam boobu nga xam ne moom mooy qutbaniyatul uzma donte que bokk na ak Mawlana Cheikh Tidiane jamono bokk na ñi ci toogoon ki ñuy wax Seydi Mouhamad Abin Nasr al alawi Seydi Mouhamad Abin Nasr al alawi moom itamit ci ponkal yi nga xam ne ñoom ñoo toppoon Mawlana Cheikh Ahmad Tijaani radiyallahu taala anhu ci la bokkoon loolu nag di tegtale ni sëriñ ci dénkaane wuñ benn yoon seen doom ya waaye mbir mi yàlla koy tànn di ko jox ku ko soob waaye du sëriñ ci ñooy tànn ku leen soob ñu jox ko lii nga xam ne moom mooy xilaafatu gi boo ko xoolee ci kii ñu lay wax nii muy sayidi wa mawlaay eh, abu nasr moom ku amoon solo la ci tarixa bi ku amoon solo la ci tarixa bi bokkoon ci ñi nga xam ne ñoom ñi bokk ci ñi amoon fathul akbar ci la bokkoon te ku xam na kàngam yi nga xam ne ñoom ñoo siq lii nga xam ne moom mooy tariqa ya dayo biñ amoon ci sëriñ bi ak dayo bi nga xam ne amoon nañ ko ci seen borom subhanahu wa taala muy lu am solo Euh, moom chérif la ci josaan yàlla mayoon na ko kesfu waaye bokkoon na ci euh, kenn ci fukk yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam garantiloon na leen maarifatu billah garantiloon na leen fathul akbar comme ni ko Mawlana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu nettalee ba mu dajeeg moom ci jamono jooj moom mi ngi am fukki at ak juróom-benn ku yéeme woon ay mbir la bokkoon na ci ñi ñuy tuddee almalamidiya mooy borom maqaam yu kawe yooyu dañ sax ci nëbbu rek yàlla mayoon na ko kas wu rëy moom itamit ponkal la woon ponkal la woon ci ñi toppoon Cheikh Tidiane radiyallahu anhu bokk na ci ñu toogoon ci maqaam boobu nga xam ne mooy maqaam ak qutbaaniyatul uzma Euh, Seyd Mouhamed Kansuusi ñu ki noon Sidi Ibn Arabi Saahi ñu ki noon Sidi Al Ahsan Sey Sidi euh, euh, Al Husayn Al Ifrini ci Ahmad Sukayrij ak ñi leen jiitu woon sax Seydi Ali Tamasini ñooñu ñëpp toog nañ ci ci Ahmad Sukayrij toog na ci maqaama boobu ñetti at ci lu u tariqa bi wax kon loolu lu am solo la ñii nag nga xam ne ñii lañ doonne Mawlana Cheikh Tidiane radiallahu anhu ñoom la ñuy tuddee ñooñu ko képp ku ràngoo maqaam boobu rek kooku la ñuy wax alxalifa al baatin mooy ki nga xam ne moo wuutu Mawlana Cheikh Tidiane radiallahu anhu mooy ki wuutu Mawlana Cheikh Tidiane radiallahu anhu ci yi nga xam ne ñooy baatin yi ak am daadi baatin yi ak amdaad yi amma beneen xaat bi muy li ñu tuddee alxalifa zahir alxalifa zahir xilaafa zahira moom itamit du ijaaza bu ñuy joxe pour nga nekk ko waaye maqaama la boo xam ne maqaama ruxaaniya la waa ci jot ci góor góorlu goo xam ne daf koy góor góorlu ci jaamu yàlla lii mandargaam mooy day dem ba moom Mawlana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu dootu hiiru ci ay bëtëm benn gendeku képp ku yegg fii nag xalifa nga ci xulafaa u eh, Cheikh Ahmada Tidiane radiyallahu anhu fii nag ci bëri ci muqaddam yi yeggoon nañ fa mun nañ ci cité ñu bari rawatina suñu mag ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon fii Sénégal ñu ci bëree bari yeggoon nañ ci maqaama bi dem ba Mawlana Cheikh Tidiane radiallahu anhu du hiiru ci seen kanam benn géndeeku kon déggal xilaafa zahir góorgóorlu la du ku ñuy taxaw rek ne ko yow la déedéet da ngay góorgóorlu ci jaamu yàlla mba yàlla aj la ci maqaama boobu bu ajee nag euh, nga bokk ci xulafaawu cheikh radiallahu anhu waaye boo fa yeggut kenn du la jàppee xalifa ci xalifa Cheikh Tidiane radiyallahu nekkal sax doomam amal téeméeri ijaaza na ko xalifa xalifa yàlla bi jox na la xalifa yàlla bi jox téeméeri junniy ijaaza boo yeggul ci maqaam yi bokkoo ci xalifa Cheikh Tidiane waaye di nga mën a bokk nag ci ñu ñuy tuddee al muqaddam kon foofu beneen farqoo fa ci diggante xalifa ak muqaddam wala yustaratu an yakuna fi kulli qutrin xalifa comme niñ ko gisee tey du sart ci tariqa tijaan ñu gox bu nekk ñoom dañuy am seen xalifaak bopp xalifaak Medina Baye xalifaak Tiwaawoon xalifaak Njaasaan xalifaak euh, waa suñu suñu euh, maam Sidi Abbas Sall radiallahu anhum loolu du sart ci tariqa tijaan lu tax li annaha martabatun gazira walakin la budda min wujudi almuqaddamin li ata loolu maqaama bu rëy la kon yooyu ñuy tuddee xalif généraux ñoom bokku ñok ndonol yi bokkul de xalif généraux mooy xalifa yi nga xam ne dañ koy teg ci kër gu ne ñu wuutu seen seen baay ma fa nekkoon di góorgóorlu ci wàllu yàlla ñu wuutu ko ci wàllu yàlla googu di ci dimbali jaamu yàlla loolu jotewut ak dara xilaafa bi nga xam ne mooy xilaafa ak baatin jotewut ak dara xilaafa gi nga xam ne mooy xilaafa ak zahir waaye nag lim lënka lool mooy di nga ci biir muqaddam ndax fu ne warta am xalifa waaye fu ne war naa mën a am muqaddam ngir ñu mën a tasaare léegi nag ñetti façon yi moo am bi ci njëkk mooy alxalifa zahir ñaareel bi mooy alxalifa al moom laa njëkkoon wax loolu yaakaar naa ni leer na ñetteel bi mooy alxalifa al am loolu amul fenn fu ñuy chartalee ni alxalifa zahir ci njabootu Mawlana Cheikh Tidiane la ñuy bokk wala ci njabootu diw la bokk man mu xeebu mii sax su ma góorgóorloo ci wàllu yàlla yàlla mën na ma boole ci ñooñu ak keneen ak keneen ak sant boo mën a am askan woo mën a bokk mën nga cee bokk amma lu ñu tuddee alxalifa al am fekkee ci njaboot ak Cheikh Tidiane ñoom ci doomam yi rek ci lañ mën a juge ñoom seen baay dañ doon moo tax dafa am charte yoo xam ne bu leeree ci bopp nit ñi rek dinañ xam euh, wax naa kan mooy xalifa dëgg ndax xilaafal xalifal baatin moom wax naa ko kooku fam toog kenn du ko fa doon waaye xalifa euh, maanaam dinañ ko fa doon sax waaye kenn lay doon ci jamono bu ne muy xutbaaniyatu xalifa zahir mooy góorgóoru ba bokk ci xulafaa u cheikh yooyu nag dafa am ay critères yoo xam ne buñ ko gisee ci yow rek xam nañ ñi bokk nga ci ma lim ko euh, li ma ci njëkk lim mooy waa nga xam ne bokk na ci xalifa yi nga xam ne al xalifa zahira lañ li ci njëkk mooy day nekk waasil moom day jokk ci borom bi maanaam day xam yàlla ba pare xam yàlla nag mooy ñu ñoril la mboolem kiiraay nga jënog xaqaayiq ci lu duwut hijaab te tamit doo fi des di gis lu duwut yàlla waaye dangay def muayana ak borom bi tabaraka wa taala muayanatul xaq fil xaqi lil xaq bil xaq bu ko defee ginnaaw loolu nga def nga am tamise ràññee li ñuy tuddee maraati bi yàlla yépp nga ràññee ko niki noonu nga am xam-xam ci xususiyaat yi mooy jagle yi yàlla di jagleel jaamam ak li mbir mi làmboo muy xaqiqa lim làmboo ak lawaasim yi ak lépp loo xam ne yelloo na ko ngir nga doon ak cëriñ loolu mooy benn boobu rek dafa jafe ñi ci yegg bëree bëreetul xam yàlla rek ñi ci yegg bëreetul waaye xam ko ci anam bi bëreetul ñaareel bi mooy dangay xam lu ñuy tuddee alxadara al ilahiya maanaam ci arab maarifatul xadara al ak lam làmboo ci màggaay ak yàlla jalaaliyatu yàlla gi ak melow yàlla yu kawe yi nga xam ko xam bu wér nag ba lépp luñ la wax ci melaw nga xam foo koy askanale yàlla lépp luñ la wax ci tur nga xam foo koy askanale yàlla niki noonu ñetteelu màndarga bi mooy képp ku dem ba yegg foofu sa xol dafay mel ni ab ndab boo xam ne day ubbeeku yàlla di ci sotti leer boo xam ne képp ku la xool rek daf koy gis yow te day xiirtal nit ñi ngir ñu bëgg la yow yi tamit ngay jël mbëggeel boobu di ko def ci nit ñi ngir ñu bëgg téye borom bi tabaraka wa yàlla di feeñal ci sa xar kanam leer ak sikar si nga xam ne yaa ngi koy def suba ak ngoon di ko ci jaamu muy màndarga yu am solo <clears throat> bokk na ci loolu ku dem ba yegg ci maqaam boobu képp ku ko gis boo amoon jàngoroy xol dina ko saafara jàngoroy xol nag buñ ko waxee mooy ay mbonte ki ñaan ñaaw njortu yu bon yooyu nekk ci yow saa yoo dajeeg sëriñ bi boo jëflanteek moom dina la biir ba nga génn ci li ndax ay kàddoom day doon shifaan lil min al uyub day saafara say ayib bokk na ci màndarga yooyu moom boo ko gisee daf lay jazbu ci xolam bu ko defee nag su la xoolee xool gam lay xool da lay jëriñ ndax jàng ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne xool Ali ibn Abi Talib jaamu yàlla la xool sa waajur jaamu yàlla ay xadis yu bari yoo xam ne imaamu yi indi na ko boo demee ci ci euh, Mu'jamul Kabir di ko fa fekk ah, donte que am na yenn yuy jam waaye boo boolee di dina wér loolu day tegtala ni xool bi nga koy toog bi ngay toog bi nemmeeku li muy def ndax loolu dafa bokk ci yar kon ni ko Ibn Ataillah waxee woon ne sëriñ dëgg mooy koo xam ne bu jëfee tegtal la yàlla su waxee tegtal la yàlla kon yow mi toog di xool di setantal ay jëfam di nga ci mën a jube mbokk na ci ay màndargaam saa yoo jaxasoog moom day fexe ba kawel sa yitte ci yàlla bokk na ci ay màndargam saa yoo toogeeg moom jëriñ rek ngay jël bokk na ci ay màndargaam jotaay boo ko fekk dañ koy wekk dañ koy màggal donte que moo fa gën a nekk xat moo fa gën a nekk képp koo xam ne nag màndarga yii ma tudd ak yema tudd ndax bañ a guddal ñi ngi daje ci ñëw ñoom lañuy ñuy tuddee warasatu sharia ñi donn shariatu ñoom ay xalifa yonent bi sallallahu waaye amuñu benn sañ-sañ ci teg fi sharia waaye yàllaa leen gërëm ngir wattu wi nga xam ne ñu ngi koy sàmm sharia waxtu wi nga wattu wattu wi nga xam ne ñu ngi koy wattu xolu jaam yi ak ànd ak teggin ci li nga xam ne mooy xususiyatu yi ñoom <clears throat> duñ doon ay maasu mu leer waaye al ñoom ay mahfuz lañuy doon xam nga Mawlana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu wax na ci Ifaadatul Ahmadiyya ne wali yàlla yi am nañ isma bu mel ni ismatul anbi anbiya ñi déggul nag dañ ko ci tuumaal te moom ismatu googu muy wax lim ci jublu mooy wali yàlla yi de ñoom ay mahfuzuuna lañ yàlla e, daf leen di dimbali ba duñ dugg ci nag sudul noonu seeni mbóot day royaatal ci seeni taalibe seeni soppandi day feeñ ci kawnu bi toog ak ñoom moo gën taxaw guddi gi yëpp wala woor at wi yëpp xool leen jaamu yàlla la bëgg leen rek ak càng la kon ci biir lii da ngay dégg ni xalifa mooy ki nga xam ne yàlla ràngal na ko solal na ko bu bëgg yàlla sol ko xaqiqa ba mu feet bu ko defee ñu war ko ci topp kon nag moo tax eh, dañuy sartal ci sëriñ bi nga war a topp mu doon boo xam ne dafa mat ci xam-xamu diine ak maanaam eh, al ilmu diini wal kasbi bu ko defee nag nga mën koo topp topp ko ci loolu mu jàngal la sharia topp ko ci leneen muy li ñuy tuddee azwaaq ak yu mel noonu loolu di am solo nag mu am nag farq bu rëy ci xalifa baatin bi ak xalifa zahir bi ni ki noonu xalifa la am moom wax naa la mooy yaa mag ci famille bi rek yaa jiite mu des beneen bi ñuy tuddee muqaddam muqaddam moom muqaddam moom ci tënk mooy koo xam ne jox nañ ko ndigal jox ko ijaaza ngir muy joxe tariqa ak joxe ijaaza su fekkee kenn tënku ko buñ ko tënkee nag am na anam boo xam ne lay demee loolu taxut ñoo kon xam naa euh, maa ngi guddal ci lef woowu te am naa leneen lu ma war a defi maa ngi jéggalu bu baax di taxawan di foofu rek wasalaamaaleykum wa rahmatullah dama fàtte woon point bi mu mubayaa bi nga xam ne taalibe yaa ngi koy def ci seeni sëriñ loolu moom ku ne xam na ni mooy bayaa bi nga xam ne suñ borom subhanahu wa taala gërëmoon na ko gërëmaloon na ko kom bi sallallahu alayhi wa sallam comme niñ ko xamee ci alquran laqad radiyallahu anil muminina iz tahta ash-shajara ndax ñi ñuy tuddee assahabatu ridwanullahi alayhim ak seen ki leen daan jubbanti daan leen tegtal yàlla muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn ku ne xam na ni saxaaba jaayante woon nañ ngir ay mbir jaayante woon nañ ngir ay mbir yu am solo ndax am na ñaari bayaa yoo xam ne ñoom ñaar dañuy ànd ngir lan maanaam a yooyu ñoo saxal maanaam ñoo tax l'islam toll fii tey bi ci njëkk mooy jaayante bi ñuy jaayante bi yonent bi sallallahu alayhi ngir dugg ci l'islam loolu dëgg la digalal yàlla la mais lépp loo xam ne suñ boroom subhaanahu wa jox na ci ndigal yonent bi sallallahu alayhi mu jox ci xeet wi ndigal loolu du luy dakk lu dut nas mooy ñëw dakkal ko ne sama yu ne ginnaaw yonent bi sallallahu bu fi kenn def mu te loolu amul nas bu ko dakkal boo demee ci e, e, xadis Buxaari ak Muslim solo nañ benn xadis ak nisaa yi bi e, su ma yax wi nii la baayaana rasulullahi sallallahu wa sallam ala sam'i wa taa'a fi l usri wal yusri wal munshati wal makrah وعلى أثرة وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله وعلى ألا وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم وفي رواية وعلى أن لا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان لي بخاري سولونو Ubaadatu bnu Saamit moo ko nettali sax ne yonent bi sallallahu dafa jaayanteeg ñun ñun dañoo jaayanteeg moom ci di topp ndigalam maanaam bu ñu bu diglee ñu tey topp ndigalam jaayanteeg moom ci waxtu jafe-jafe ak waxtug yomb-yomb ci loo xam ne ci suñ cawarte lañ koy def ak liñ ñu forcé ki noonu bu ñu këccoog boroom mbir yi seeni mbir te buñ toll nañuy wax dëgg donte ko dëgg gi suñu kaw la daanu ne buñ ragal ku ñu yedd maanaam yeddaa njëg aji yedd ci dëgg ci beneen riwaaya mu ne lu duwut ngeen gis kufru gu leer naññ boo xam ne amal ngeen ko lay bu jógee yàlla bu ko defee nag mën ngeen a wuuteeg borom bi moom kon jàppal benn xadis a ngi noonu buy dëggal lii ñuy tuddee baya te baatu baayaana la jëfandikoo beneen xadis bi mooy umaymatu bintu raqiqa radiallahu anha dafa nettali ne ataytu nabia salallahu alayhi wa sallam fi niswatin min al ansar nubaayiuhu dikkal naa yonent bi salallahu alayhi wa sallam ànd ak ay jigéen yu bokk ci lansaar ñu di jaayanteeg moom kon jaayante góor la koy def jigéen la koy def mu ne fa qul naa ya rasulallah ñu ne ko yow mu yàlla yooyu nubaayi'uka ala an la nushrika billahi shay'an wala nasriq wala nazni wala na'ti bi buhtaanin naftarihi bayna aydina wa arjulina wala na'siyaka fi ma'ruf ñu ngi lay ñu ngi jaayanteeg yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne dootuñ bokkaale yàlla duñ sàcc duñ njaaloo duñu def ak njombe goo xam ne dañ koy def bayna aydi aydina wa arjulina maanaam njaaloo rek ak yu xeet yu bon yooyu te duñ la mooy ci benn lekk boo ñuy digal qaala fi ma stata'na wa ataqna ci li nga xam ne mën ngeen ko te attan ko qaalat yonent bi sallallahu soxna yi ne qulna allah wa rasuluhu arxam bina yàlla ak yonentu ñoo ëpp yërmande ci ñun kon nag halumma halumma kaay leen nu baayaaka halumma kaay yow yonent bi sallallahu alayhi nu baayaak ka ya rasulallah ñu jaayante yow fa qaala inni la usaafihu nisa yonent bi sallallahu ne man du ma saafuwante jigéen maanaam du ma jox jigéen loxo innama qawli li mi'ati imra'a ka qawli li imra'atin waahid wax ji may wax junni jigéen mooy li may wax rek kenn ci jigéen ñi loolu Tirmizi indi ko nisaay indi ko lu wér la ta baatu bayaatu lañu niki noonu ñaari bayaa yooyu da ngay gis ni dafay nekk benn te li muy war a li li muy li résultat bi muy jur rek mooy wujubu taati tarafi suuf lii li tarafi la ala noonu la ñi féetee suuf dañoo war a topp ñu féetee kaw loolu rek lay lay jëriñ ñu féetee suuf dañoo war a topp ñu féetee kaw comme ni ko alquran waxee yaa alladina amanu atiu allah topp leen yàlla wa atiu rasul te ngeen topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa ulil amri minkum ak ñi yelloo seen ñi ñi méngoo seen mbir ci biir loolu dégg nga Buxaari eh, Buxaari hadis bi mu jàngale Abu Hurayra nettali ko te yonent dafa ne képp ku ma topp topp nga yàlla képp ku ma mooy mooy nga yàlla képp ku topp njiit lu lu ma jiital topp nga ma ku mooy sama njiit mooy nga ma kon loolu mooy tegtale ni jaayante moom dafa war a am jaayante dafa war a am sëriñ bi ñuy topp loolu rek lañ koy toppee wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu